na defe naa ni dudd kenn lam ko waxoon rek ca wayya moo fi nekk waaw boo masaa boo ko masaan di soxlaam ba muñ ba teg ca insha allah nga xam ni mbay mooy waaja tey jii la raw ziyaara li leen tabaraka soxla ba muñ ba teg ca insha nga xam ni góor gi mooy waaja te ji la raw sari leen ko bu leen ko fàtte di ñaanal ah, mbay mi fi nekkoon yoroon xilaafa gi bootoon njaboot gi Maodo si bootoon lay bokk masaan présenté say àndandoo du leen fàtte saa yu la Cissé di leen laajte xalifa moo mat doyloo bu leen ko fàtte di ñaanal xalifa bay mi fi nekkoon yoroon xilaaf gi bootoon jaboot gi Maodo si bootoon wallaay bu daan doxantu ca kaw taaxam

ci Sénégal gi ba ca Congo bala fajar ñépp yëg ko Baay Abdul Aziz la koy waxloo bu leen ko fàtte di ñaanal loxo ci al amin xalifa bay mi fi nekkoon yaa xilaafa gi bëtt bokki Maodo si boto giñ naa kori ki ñëw naka noonu tëbës ki ñëw naka service bi tam naka noonu Serigne Abdoul Aziz Si la koy doxaloo bu leen ko fàtte di ñaanal ah, xalifa bay mi fi nekkoon moo yoroon xilaafa gi boto njaboot gi Maodo si wallaay ku la masaana indi ci moom bu dellu see te àndoog moom mbay laaj lu xew ngir maando asgor dafay gëstu démboo bu leen ko fàtte di ñaanal xalifa ah, mi fi nekkoon yoroon xilaaf gi batoon Maodo si boto moo tax xale yi judd ci ginnaaw mbay gisuñu mbay te mbay la ñu gëm xale boo ci waxal mooy maamam bur yàlla moo ko ko jagle